defee euh, ci waxtu wi rek euh, saa su ne tey nag yembook boog. bi. ah euh, ok. ñaari fan ci weeru août. ñaari fee ñaari fan ci weeru août. ci atu. ñaari junni fukk ak juróom-ñeent ñu pàcc pàccal ñu ci fukki signe ak ñaari di ko doolee ci bélier yi. di wax ci wàllu amour santé ak travail. tabaski des. tabaski des gàtt fukki fan. waaw tey tey la ñuy séntu tey tey jii la ñuy toog seen séntu bu njëkk tey. Eh, man damay jaay xar. kenn jëndul saxar. daxal daxal ah. daxal daxal daxal. parce mu ne nii. damay perturbé horoscope <laughs> non mais nag kaam xool bi dafa ne perturbé <laughs> dafa lu neex. <laughs> jaajëf di àll jaajëf jaajëf àll comme ni ñu koy faral di defee saa su ne comme ni ko laaj waxee tey euh, di talaata ñaari fan ci weeru atu ñaari junni fukk ak juróom ñeen ñu pàcc pàccal ñu ci fukki signe ak ñaar yi ñu koy dooree ci bélier yi ñuy wax ci wàllu amul santé ak travail travail boobee ci la ñuy dooree mu mel ni dina am ay contretemps wala jafe-jafe gàllankoor wala yu ñàkk déggoo yu am yoo xam ne yu mag yoo xam ne dina am sa diggante yéen ak nit ñi ci biir loolu nag nee na yéen seen jëm bopp seen estomac bii ngeen am maanaam mbàq mi lekk yi ngeen ciy dugal na ngeen ko xool mu nekkee lekk léger sinon dafay nekk loo xam ne mun na leen indil jafe-jafe ak gàllankoor ci wàllu wii sentimental it relation amoureuse dafay nekk li nga xam ne dina si taxaw waaye it ñuy gis ne dina am ay conquêtes yu bees yoo xam ne dina taxaw jëm ci sa diggante ak ñooñu nga xam ne yaa ngi xalaat di bëgganteek ñoom ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tóoro yi mu ne mbëggal ak mbegte mi ngi ci ngelaw li loolee nekk li nga xam ne sa xol bii dina am ku ko téye di ko bërëj bërëjee loolu nag nekk na loo xam ne lañ ca doon xaar dina nekk loo xam ne luy sotti lay doon ci wàllu santé it ñuy gis ne yéen seen jëm bopp mu mel ni dina am ressource énergétique yu am solo wala vital yoo xam ne dina taxaw ci yéen loolu nag nekk na loo xam ne boo leen ko defee di ngeen nekk en forme journée tey bii nii di bés boo xam ne projet yu am solo yi nga xam ne ñi ngi woon ci seen xel ngeen waroon ci dox liggéey ci day nekk loo xam ne luy ñëw sotti lay doon incha allahu rabi bu ñu jógee ci ñooñu ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunes yi wax leen nag tey jii moom jeunes yi nga xam ne amuñu borom kër. mariage dafay nekk loo xam ne mooy doon discussion bu am solo bi nga xam ne dafay am ci jenn célibataires yi ba tax na ci biir loolu yéen seen jëm bopp na ngeen reporté si yenn projet yi nga xam ne da ci amoon ngeen mën a jubli ci loolu yi nga xam ne mooy mbiru sëy bi bu leen gaspiller seen énergie nag di daw ci loo xam ne amul bopp amul genn loolu dafa nekk loo xam ne daf leen di tardel na ngeen reposé wu moom mooy nekk li nga xam ne gën na ci yéen wàllu liggéey bi it yéen ngeen nekk nit ñoo xam ne projet professionnel yi nga xam ne da si amoon ba tegoon ko fi mu nekk nii yaa ngeen di commencé di récolter fruits yi muy nekk loo xam ne gënal lay doon ci yéen ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi bu dee da ngeen di nekk en couple jàppale na bésu tey bi dina nekk bés bu xaw a dëgër tuuti muy am ay réeroo coow ñàkk bokk gis-gis yoo xam ne dañ siy taxaw waaye ci wàllu santé bi seen forme physique tey dina baax ngan di appétit ngeen di am maanaam foqale bënn la gu mucc doy waar ku yéeme sax day taxaw ci seen kanam loolu nag da ngeen ñu sonal seen biir bi donc da ngeen ci bàyyi xel bu baax ci wàllu liggéey it mbir yaa ngi commencé di dox nank nànk nangeen ko doon yaakaare woon ay jamono demoon ba xaw ci découragé loolu dafa nekk loo xam ne luy jeex lay doon ba ngeen commencé am ndam ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy lion yi mu ne yéen lion yi ah bu ñu xoolee tuuti moment yi nga xam ne yaa ngeen ci nekk nii àll day lekk ay moment yu mucc ayib yu tànkàlla yoo xam ne wax dëgg neex yàlla daal affaire yi dina dox waaye bu ñu xoolee tuuti ah, yéen seen jëm bopp it ah, da ngeen ni am problème pour mun a résister. ci seen wàllu foqale gii nga xam ne dangeen ko nekkee jamono yi nii. bënd la waxuma ko. waaw laaj li gën a wax. laaj li gën a garaaw la. yow kii bi nga judd 24 heures bi. yu mujj yi waaw léegi nee na loolu dafa nekk li xam ne léegi nee na nag soyez raisonnable. ngeen xool lu jaadu ngeen def ko. léegi nag ci wàllu liggéey moom amul lenn lu leen yittee ba ndam gi nga xam ne dafa taxaw nii ci seen kanam doo leen ci jot. loolu moom alaa kulli ki mun ci lenn vierge nag yéen bu dee ay célibataire ngeen bésu tey bi dee day nekk bés boo xam ne euh, farantu ak relation yu bees ak yooyu yëpp day doon yoo xam ne daal dina ci taxaw ci bu baax a baax a baax moo tax ci biir loolu nag na ngeen xool it fa ngeen di teg seen tànk ba laata ngeen di dugg ci ndëgg sëlëx wax na it ne euh, yéen mot gorge méttitu baat day doon li nga xam ne dina fës ci yéen lool yéen vierge yi kon nag. Euh, Idr baxal xorompoole naan. <coughs> na ngeen baxal xorompoole naan ko loolu la laa di wax moom day def ay bon plan. kon dèjà loolu nañ ci bàyyi xel baax ci wàllu liggéey it yéen seen ñu bopp ca na mu nekkoon rek li laa di wax ne ci noo fanaane yéen it ca na ngeen nekkoon rek na ngeen ci wéy ndax loolu day nekk loo xam ne lu baax lay doon. lu mucc ayib waaw lu mucc ayib ñu dem ci signe mujj yi di ko dooree pàcc ki nga xam ne moom mooy balance mu ne yéen balance yi ah principe yi ngeen am di jaay jàpp di jaay perek di ngand ngandalu di jéem a indi di bandi bandilu di bandi bandilu nee na boo leen ko yóbbee ci seen ki ngeen di bëgganteel da koy jënd. kon jaru ko teg bàyyi la mu set waaye doon jaay moom foo bese ah. arme tey kay moom ah. armateur waaw looy jaay moom balance yi yéen a ngi dégg waaw looy jaay moom tey day lam moom kon moom bu la leen jaay moom <laughs> peut-être ma ñëw foofu moom bàyyi mu sedd parce que da koy jënd ba mu mot sëg après léegi nag nee bal bi day tourné ba yow sa jëm bopp système ba nga defoon day ëlbatiku contre yéen. tey nga dee kon loolu balance yi. may te xam naa du ñàkk liir nga ko ci français bi. nekk balance yi nañu yem. arrêté nañu yem nee na ci wàllu santé moo tax it ay nelaw de sommeil réparateur da xam nga boo sonnee léeg-léeg dañ lay teg sëf la loo métti loo xam ne da ngay nelaw. da ngay nelaw te doo doyal. nelaw te doo doyal loolu na fa nekk loo xam ne tey jii nii yéen balance yi dem leen tëddi nelaw moo gën ci n wax na it ne ñenn ci yéen ci balance yi ci wàllu professionnel wax dëgg neex yàlla danga nekk nit ñoo xam ne donte di ngeen def ay erreur bu ñu leen waxee da ngeen ñuy dégg te dégg gaw ngeen di dégg moo tax dootu leen defaat njuumte loolu xéewal la. Mm-hmm. ñu jàll ci ñi nga xam ne réyuñu la réyuñu voilà réyuñu. réy mm. ñu fi ne ñu fi ne dañu leen peer bés ñu peer donc ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy scorpion yi pour yenn couple yi journée tey bi moom dafa nekk ci solidarité attention euh, di sentirante maanaam seen kii di kiyante moo loolu dafa nekk loo xam ne nee na lu lu lu mucc ayib lay doon tey. maanaam yow mais li nga wax dara leeru fi. Hmm? ay auditeurs dañ lay déglu. ok waa xaaral rek may may ma nee na pour yenn couple yi tey. Hmm. lii di xeetu si mari ngaañ. lii di xeetu frottante seen yaram yi. Hmm. lii di xeeti nekk maanaam seen température yi di jegeyantoo ne dafa nekk loo xam ne maanaam day day mel ni comme ndox mu ndox ndox mu sedd boo jël rek dugalaat ko ci congélateur nu muy def. congelé day gën a congelé leen seen diggante noonu lay dëgëlee. ah ok diir day diir. day diir comprendre ah, ah, waaw. xam nga ñaari température yu jege day indi tarkal right voilà donc loolu nañ ci bàyyi xel baax baax ci da nga bëgg affaire température mais non waxuma ko horoscope wax bàyyi leen di ma wax loolu ma waxul Mayte wax ci France te waxu leen wax na ko ci France waxu leen ko dara moo ko ci wolof ngeen di ndax ma koy wax boxal ba mu ah, ci côté santé bi nee na da ngeen nga xam ne <laughs> ñoom it dañuy reposé wu mën bu bëri da ngay da ngay da tooy da ngay tooy <laughs> ci jaanu biir yi di di di métti sa sa tere tere biir yi nee loolu dafa nekk li nga xam ne sa addicteurs yi di bàyyi yi di bàyyi sa boulon yi di dessert yooyu nee ngeen tëdd ngeen reposé wu suffisamment pour fatigue bii ngeen accumulé mu mun a waaw parce que da ngay ressource ji waat merci beaucoup léegi nee na wàllu wàllu wàllu proche force bi nga xam ne nag mun na am sa diggante yow ak say supérieur scorpion yi bàyyi leen mu seet coordination waaw laa <laughs> ñu lay def raataale lii ngeen di rapport de force bii ngeen defal seen si président jaru ko am na mu solo lépp waxtaan mm-hmm, waaw ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy célibataires yi nee na dina surprise de surprise bu ndaw boo xam ne di ngeen ko improviser de jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy seen way bëgganteel nee na nag ci biir loolu day wax dëgg neex yàlla di ngeen ko wan ne bëgg ngeen ko de bu dee nag ay célibataire ngeen ah dara leeragul ci seen bopp mm. ah. ci guddi gu bët setagul ngeen ne xamuñ ndax nañ leen takk xamuñ ndax duñ leen takk amuñu chance xamuñ leen waaye nañ nëpp sëy waay ah ñii de moom sa nekk leen sëy waaye jigéen ñi man ko laa bëgg mu takk ma hmm. faafa gay kuy faafa <laughs> xamoo faafa faafa man mel wii dootu ko defati muus bi de la koy jël rek tekkale ak moom waaye dafa àll 52 ah. moo jot ah. manque rek maa ngi calculer heure 52 de si ah, de dafal ndànk rek àll nànk rek waaye saa yi waaye sa waay sari mañ ngañ boobu nga doon wax sax moo la téye ba léegi. jégalu léegi ne <laughs> kii yaa ngi dugg ci loxoom de Fafa. bu yeboo de na nga préparé wu pour dóob bi bambaane muus. <laughs> socc seen donc dèjà loolu nekk na xam daf siy taxaw mu ne tamit ci biir loolu eh, na ngeen moytu tey ay migraine maanaam xeetu méttu bopp yu seen soxna yi mayte doon wax sànq. waaw na ngeen ko na ngeen ko moytu. parce que mën na perturber seen journée. quand même tey waaw dañ si bàyyi xel baax a baax nee na it nii ngeen mel jikko bii ngeen am nii da ngeen ci débarrassé wu ci nu mu gën a gaawee ndax ba la ko yóbbee sur le plan professionnel da di indi ay jafe-jafe seen diggante yéen ak ñi ngeen di liggéey te loolu vraiment nekkul loo xam ne faire la part xool bu baax quoi ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy capricorne yi mu ne ñoom sexe appeal la day nekk au rendez-vous tey yu donner et du recevoir di donner di recevoir sexe opposé yooyu dafa wax ne rawatina sax pour yenn célibataires yi ah célibataires yi daal loolu moom nee na tey daal moom dangeen ngeen koo jël rek yéen aakim moo ko waaw yi ñam yi ñam kii nag moom ñoom moom duñu duñu duñu duñu waa duñu régler daal waaw na ñoom dañ koo jël aakimoo loo ko seen bopp tey jii nii li ko seen bopp ba pare li ci gën a xam dañuy séduisant dañuy nekk ay charmeur loolu dafa nekk ay allumeur ay allumeur loolu yëpp day nekk loo xam ne wax dëgg yàlla dafa baax nee bu fekkee da nekk en couple nag tey jii moom fexe leen ba nekk jàmm rek seen diggante ak ki ngeen di bëgg waaw léegi nag mu am vitalité xarañte pas-pas am maanaam daal cawante gu mucc mucc ayib goo xam ne da ciy nekk. day ànd ak ñambaxtaan ñambaxtaan loolu dafa nekk. ñambax ñambaxi waaw eh, loolu dafa nekk li nga xam ne bas sugu woy na ko de. voilà yooyu yooyu ne. bilaay <laughs> mooy lay xeet fecc yu jum yu ma jaaxal yoo xam ne man man musuma gis loolu. ñamax ñamaxi noonu lañ koy feccee da ngay ñamax ñamaxi. <laughs> fecc yi lan. non loolu dafa garaaw. Maite dimbali ñu la bu fi jógaat. ok. donc mu ne loolu Capricorne yi lool la mu ne tey nag dafay nekk journée boo xam ne il faut ngeen am possibilité pour seen situation professionnelle ngeen xool ci façon liggéey yi ngeen di jaar pour mu mën a sotti. d'accord ñu dem ci avancé bi mujj bi àll di ko muy verso yi. Mm-hmm. ñoom ci seen wàllu relation santimental rawatina ak ki ñuy bëgganteel bu amee incompréhension yi dañ jàpp ne du dara. dafay indi réeroo rek ci yenn information bu ñu waxtaanee jubóo wax na ci biir loolu aussi ñen ci wàllu santé aussi di ngeen am santé bu bu baax vraiment du am benn problème peut-être mën na am benn baisse d'énergie bu ndaw a ndaw rek mais du nekk loo xam ne lu yàgg lay doon ci wàllu travail it dañuy nekk li nga xam ne bu fekkee am na ay problèmes sentimentaux sa kër na des sa kër. ba ko foofu ah, bu ko indi ci fi ngay liggéey parce que fii boo ko fi indee fii ñu la ëpp problème sentimentaux ñoo fi nekk dañ koy jënd. <laughs> bilaay du yomb ci yow waaw muy yombee boo ko amee ñoo ñëwee ñu la ko ëpp ñoo fi nekk. donc ñooñu aussi ñu dem ci. ñu mujj nga lem sa gen daal toog ci lem moom nga toog si <laughs> ci poisson yi nag ñoom ñoo mujjee. Eh. mu ne ñoom dañu nekk nii nga xam ne am na complicité buy am ci seen diggante yéen ak ki ngeen di bëgg ah, waaw loolu loolu am na solo loolu jàmm la loolu am na kii euh, célibataire yi ay trompeur lañ dañuy naxaate. Ah. ba pare di di di di di maanaam di wax ak di teg dil foofu jàmmam ñoom ñoo ko wax di di di teg wax lu ñu dul def sax. ñëw wax dama lay takk tatakkuloo. loolu de a kii waaw. tas yaakaar nañ si bàyyi xel bu baax a baax. nee na bu ñu leen ko defee célibataire yu jigéen ñi nga xam ne ñooy kii lu ñu dëgër dëgër dëgër dëgër coup bi daf leen nii dal. day métti daal waaw sant bi ah, day sant bi du du du jàppandi quoi day taxaw ci wàllu liggéey nag tey mu nekk journée boo xam ne daf leen di mën a permettre ba yéen seen yow chance bi ngeen am pour war a mun a wane ne seen capacité lii la nee na exploité da ngeen ci am ndam. Hmm. waaw waaw loolu baax na ah, macha loolu moo nekkoon horoscope bu tey bi ci kàlla. looy tàggoo